nga xam ne moom moo di Abdoulaye Badiane ak famim ak mboolem ñi nga xam ne ñoo di ay xaritam at mu jot day ñëw fi nga xam ne moo di ci Touba Mbacké ngir amal fii journée de consultation gratuite ren jii di treizième édition bi mu jongal lu ëpp juróom fukki gone waaye it ay mag ñu consulter leen jox leen ay garab loole mu koy jëf ci dëkk bu sell bii di Touba ngir jàppale leen ci seen wérgu yaram. lii dadi loo xam ne dañ ko summ ak sunuy mbokk ñi nekk nii yëpp di ko def ku nekk def ci dooleem ñu di ko manal ba tey la fukkeelu at bi ak ñett ñu di ko def te liñ ci jublu yëpp mooy taxawu daara yi taxawu xale yi taxawu njabootu daara. donc loolu mooy lii andi sunu taxawaay nii Touba muy treizième édition comme ni ma ko waxee ci ren at mu jot dinañ am objectif plus de cinquante xale yoo xam ne dinañ leen xarafal def li war ci ñoom yëpp wutal leen lu ñu sol jox leen garab yi leen di accompagner ba ñu dugg ci néegu góor waaw dana andiwaale tamit ay spécialistes yoo xam ne. maanaam ci faju jigéen ci bët ci euh, maanaam xeetu wéggu yaram boo mënti xalaat daal sunu encadrement bi nga xam ne moom la ñu àndal alal junu law la alalu njaboot gi la moom la ñuy jël dajale ko di ko def di ci dimbalee néew ji doole yi fii loolu rek mooy sunu tànk mooy sunu yitte. te ñu képp ku ñu ñaanal nañu ñaanal ñu yàgg di ko man képp ku ñu ci dimbali na ñëw fekk fekk si ñu ci yoon wi nga xam ne ñun yoon wi ci la ñu jël. Euh, fanweeri euh, médecin ak infirmier ak sage-femme ñoo ñëpp ñu ngi fi bañ nañ ko ba kaar yi ñu leen daan def xajatuñu ci. lim bi ñuy consulter chaque année en tout cas ça tourne autour de quatre cent quatre cent cinquante. waaw. gone yi nga xam ne ñoom lañ jongal ginnaaw bi daañu fi bàyyi ñoo xamante ni ñoom ñoo leen di saytu ba keroog ñuy wér. ñi ñu xarafal bala ñuy tàmbali xarafal bi sax commission médicale bi ñoom ñëpp bala ñuy tëdd nelaw ku ci nekk dañ lay defal paquetu nombre bi ñuy xarafal. ça veut dire que depuis euh, maanaam ba opération bi euh, xarafal bi tàmbali ba na ngay wéree li lay faj mi ngi fi. doo ko jéggaane doo dem fen maanaam dina am suivi une semaine ba dix jours yoo xam ne dañ leen di suivre ci corps de santé yi nga xam ne ñoo fi nekk. journée de consultation gratuite bi nit ñi ñëwoon nañ takku lool lu ëpp ñeenti téeméeri nit yoo xamante ni consulter nañ leen jox leen ay garab mu jur mbégte ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi. tudd soxna Nakoy Ndiaye dëkk fi ci koñ bi waaye nag wax dëgg yàlla moom lii moom dañ ci am mbégte trop. waaw ak sant yàlla trop ndaxte lii moom moom mi koy def at mu jot wax dëgg yàlla gis nañ ci njariñ loo xam ne si moom daal man ba ma fi tuxusee ba léegi ci moom laa koy gis waaw at mu jot mu ñëw ci koñ bi def fi tranga yi mu fi def nandal xale yi def lépp ca yàlla tax faj mag ñi faj xale yi wax dëgg yàlla daal ñu ngi koy ñaanal fu ñu toll daal ñu ngi koy ñaanal waaw ñu ngi koy ñaanal fu ñu toll ñoo ay mbokkam ñoo dëkk fii ñu ñoom ni jaay Modou Fall ñi lu ñu yitte wala ci koñ bi lu ñuy soxla la di ko ñaanal nag mu yokk yàlla ko yàlla suñu borom yokk waaw ci barke bu baax Salaam gi mu yaakaar yàlla na ko yàlla borom yokk am nañ ci kontaante trop waaw xale yee ci kaw samay set ñu ngi ci kaw waaw gox bi depuis bëkki dem ba léegi nit ñi kenn ku ne fii ñu mi ngi fees del ñu yor nañu wax dëgg yàlla sant nañ yàlla di ko ñaanal lu man ren bu déwénee yàlla na man lu ko ab jëf ci xanaa mu baax rek ñu koy ñaanal Ablaye yàlla bàyyi ko fi ak ñëpp man Ablaye yumpaañam laa chaque année njulli yi muy def fii man maa xam lu baax la mu def ndax laax bi nga xam ni moom la ñu lee lekk man mi maa koy fondé di ko togg ay 4 heures laa koy laa ko taal tey avant 6 heures indi naa ko fii ci kër gi te lépp lu baax rek moo ko ci yóbbee kon ñun ñu koy ñaanal yàlla yokk fanam ñaanal sama tante ji ci biir yàlla gën ko fee bàyyi. kilifa yi ñëwoon nañ ci bés bi ngir teewee ko Serigne Cheikh Anta Mbacke mu Salaam yabal fii rakkam waaye Serigne Cheikh Bara Laat Mbacke ñëw fii daal di rafetlu lool jëf ji nga xam ne Abdoulaye Badiane mi ngi koy jëf at mu jot. ndax suñu diggante ak moom pas-pasam ak jëf ju baax ji nga xam ne mu ngi koy jëf moom ci boppam. waaye mu ngi sant ak njabootam ñu di ko jëf ba yéen ñii lenn ci ak njabootam mobiliser ñii ñu ñëw di fi def bis bu tedd nii eh, at mu jot ñu di ko def ñu wax léegi ne ren moo ci fukki at ak ñett eh, dañ daan wax ni eh, wolof day léeb ni lu yàgg dëgg la waaye sëñ Sidi Muxtaar daf maa ma sa wax ne wolof daa juum foofu ma ne ko lu tax mu ne lu yàgg lu baax lu yàgg mooy dëgg waaye lu bon lu mu yàgg-yàgg du dëgg kon lii dëgg la kon ñu teew fi teewal fi Sëriñ taxa ndax moo ñu wax ni fépp fu ngeen teew man ngeen fa teewal lu ngeen waxit maa ko wax moo waral lépp loo xam ne war nañu caa teew te teewal ko fa danañu ko def na munu ko sa na mu ko bëggee te lañ cay jublu itam mooy Sëriñ tubaa amul tànki gannaaw tànki kanam rekk la am te ñépp ñëpp ay taalibeem lañu te moom mooy sëñ Touba te ñëpp nangul ko ko itam nag te ñëpp di ko ñaanal it fi mu bëgg yóbbu liggéeyub sëriñ Touba bi mu yóbbu ko fa kon ñu di leen nuyu yéen ñëpp ci turam waaye ci turu sëriñ Cheikh te di leen sant bu baax itam te di leen siyaare itam ci jëf ju ju tedd ji nga xam ne jëf ngeen ko ndax eh, Euh, lewetal bi nga xarfal bi nga xam ne yéen a ngi koy xarfal xarfal gone yi ay nit a ngi ci biir yoo xam ne jombul seeni doom a ngi ci bëgg nañ ko waaye lu ñu ko defee amuñu ko saytu bi amuñu ko te léegee léegi ñu war koo def defuñu ko sax ba mu far jur la neen kon cant gi mën nañoo wax ne foofu lay tàmbali te mënoon ngeen a liggéey ba am li nga wax léegi loo xam ne daf leen a lew ngeen jëmee ko feneen fudul fii ci Touba bu ngeen lii ngeen dafit bu ngeen ko doon def fu ngeen nekk yàlla suñu borom mi nga xam ne moom ngeen koy defal moom mi ngi koy gis te itam lu baax moom ku koy def ku ne yaa ko moom ndax Sëriñ Saliou dafa waxoon ni nit ñaari biir la am ñu ne ko ah, mu ne benn bi bu mu ko yitteel wa min daabatin fil ardi ila allahi risqa ki biñ gu yàlla xar dana ca def dara njannaaw yi ak mbindaafun yu dul jeex ñi ngi dund te yoruñum xel amuñuy magasin liggéeyuñ defuñu dara te yaa ngi añ dereer ña añ dereer kon mu ne biir boobu bu la yitteel mu ne xam nga xanaa lu la war a yitteel kay mooy sa biir bàmmeel ndax loo fa deful doo ko fekk man ma teg ca ne bàmmeel salle d'examen la salle d'examen la loo buñ la duggee boo duggee ci classe bi ñu visité la ba nga desee big loo fa yóbbaaliwul woon ci xam-xam mënatoo ko faa man maa ci teg loolu kon liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey taalib yi yëpp bu fekkoon dañoo def ni yéen kon mën nañoo wax ne yoonu murid du soxla dara ba di ko wuti fenn ndax bu fekkee ni ñii dañoo jàpp ci xarfal ñii jàpp ci faji bët ñii jàpp ci faji tànk ñii jàpp ci fajub xol ñii jàpp ci leneen ak leneen bu yàggee dana daj loo ci soxla danga xam foo koy wute ji at mu jot da nga xam ni ñiy jóge bërëb sàngam tey def nàngam dinay ñëw place sàngam nga nekk leen fa su fekkee amoo doole joo xam ne defale mën nga koo defal sa bopp te itam lii waxuma la sax euh, sëñ Tuubaa mi ngeen koy defal waxuma maam Cheikh Anta mi ngeen koy defal waxuma population bi ngeen koy defal waaye seen jëmmi bopp ngeen koy defal jëf ji nag Abdoulaye Badiane ak ñi nga xam ne ñoom la ci àndal ñu indi woon lu ëpp fanweeri médecin ak ay spécialiste lépp ngir consulter ñi nga xam ne ñoo di askan wi te yittewoo ko lool lii la nag juróon ak mbégte ci mbooleem ñi nga xam ne ñëwoon nañu fa waaye it ñaanal bu baax Abdoulaye Badiane ci jëf ji nga xam ne mi ngi koy jëf at mu jot fii ci Touba Mbacké mu wéy di ko gën a mën